ndogal bu jiitu réew mi jël daal di tas gouvernement bi teg si xam le ni dañu nar a amal élection yi ci 24 mars bii ñu jëm loole nag daal di na jur njàkkare ci candidat yi nga xamante ne nii dañ leen daal di recalé ci wàllum parrainage yi Mouhamed Ben Diop bokk ci candidat spoliés yi li mu xamle mooy li ni mel dafa daal di rek teggi kàddu ki nga xamante ne nii moom mooy conseil constitutionnel. bi mu jëlee ndogalam pour wax ne ne ne élection yi nañ ko jàpp ci date yi nga xam ne moom la wax maanaam mel nañu ne dañoo jàkkaarloo conseil constitutionnel boo xam ne dafa tollu ci ci ci ci defante te du loolu la ñuy séntu ci ñoom. moom mi li li mu xamle mooy li ni mel deful lenn lu dul violer li nga xamante ni nii moom mooy constitution wu Sénégal. li ñuy wax ne ne article 92 bi ñuy wax ne ne bu xasee ba jàpp dara décision. ñëpp dañ ci war a confirmer wu te waru kenn du ci dellu si waat kon mel na ne moom la mu doon wax jalgati war na ay kàddoom ñëpp li ñu naan ay euh, conseil constitutionnel du dellu si ay kàddoom dellu si na ci kàddoom su fekkee ne loolu def na ko muy benn ñaareel ba ba mu xamee ne mën na jàpp date ba muy jël décision le 15 mënoon na jàpp date euh, waxtu boobu kon mel na ne na ñoo tey li ñuy def ba fi ñu agsi nii li mu jàpp mooy li mu metti métti dañoo war a sàmmoog li nga xamante ne nii moom la ñu suñu constitution daal di may. dañ ne décret moom mooy wow le collège électoral le conseil constitutionnel n'est pas habilité à convoquer le collège électoral gis naa seen décision bi ñu ci def di wax ne ne ça fait dañ koy du du rôlam dellool ko du du du du rôlam c'est dévoué au chef de l'État moom buy jël. tey jii dogal ne day woo le collège électoral dafay conformer par rapport ak la la loi. bile conseil constitutionnel daal dina génne benn communiqué di ci xamle ni d'accord na ak décision njiitu réew mi ngir rek ñu amal élection yi ci 24 mars bi teg si 19 candidats yi nga xamante ni ñoom lañu daal di woon jàpp ñoom ñoo nar a bokk ci yile élection.